yaakaar mën na am ci ni France 24 ak RFI dinañ dooraat seen liggéey ca réewu Mali ginnaaw ab waxtaan buñ amal niki tay ci suba dox ci diggante njiitu Sénégal di Babacar Diagne ak njiitu France Média Monde di Marie-Christine Saragos ak kilifa yi ngànk wàllu commission de régulation nekk ci réewum Bénin ak réewum Côte d'Ivoire ñoom nag ñu doon waxtaan ngir dox tànki jàmm. ci ànd ak euh, René Bourgoin mu yore régulation ci euh, Côte d'Ivoire ak Rémi euh, Moretti mu yore régulation ci euh, Bénin daje ak PDG Marie-Christine Saragosse li ñu dégg ci moom doy nañu ndax wax nañu li mu def yépp wax nañu liggéey bu mu bëgg na liggéey. fekk nañu demoon ba moo ko bu baax gis Fodji Touré mu yore régulation foofu. gis Choguel Maïga mu wax ñu li ko naqari en tant que premier ministre ba ñoom ñëpp euh, bi ñu leen dégloo déglu tey France Média Monde yaakaar nañu ne mën nañu dem ba nga xam ne France Média Monde ak RFI dina leen xool au Mali incha allah. ay ñàkk déggoo moo doxoon ci seen diggante waaye nag fas nañu yéene koo rectifier. léegi comme dañoo xam ne am na ay malentendu malentendu yi waxtaan nañu ci loolu rek la ñuy rectifier bu ñu ko rectifier rek daal di dem de l'avant Euh, parce que muy euh, euh, président René muy président Rémi bu ñu demee ak ñoom waxtaan bu dëggu lañu ñu waxtaan bu sincère ak autorité Mali dañ ci leen naqare te loolu lépp wax nañu ko Marie Christine. ci liggéey bi léeg-léeg nga am yoo xam ne da nga koy wax ci dëkk bi ni nga koy waxee wala la ngay wax réew ma fa nekk ne loolu du loolu loolu nekkul wala boog da leen bëgg teqatal da leen bëgg daaneel de loolu moom ngay bëgg. xam nga loolu lu ko waral nag mooy diggante ñaari réew yi am nañu ay ay jafe-jafe ñaari réew bu ñu amee jafe-jafe nag loolu liggéey ci wàll woowu wala wax dëgg wàll te dañuy foog ne loolu moo tax loolu ngay suuxat. ñoom nag ñi ngi xam xamle ni seen bëgg-bëgg mooy informer juste et vrai ndax mooy doxal démocratie.